ñoo war sant yàlla. sant Ousmane Sonko. Hmm. parce que nag li tax may wax loolu mooy ginnaaw bu ñu santee yàlla sant Ousmane Sonko waman laa yaskuru naasa laa yaskuru laa. dul sant nit. doo sant bi tàngee daa am ko dugal sa loxo. Macky Sall bu fi nekkaatoon amaatoon mandat wala Amadou Ba ñun hmm. Sénégalais. fuuti nañ yàqu nañ yaxeet li mu installé ci dëkk bi mhm. te Macky dama koy wax il n'est ni ethniciste mhm. ni raciste mais dafa utiliser xeetam parce que dafa am lu ñuy wax ci wolof mhm. euh, philosophie morale wolof dafa am lu mu bañ parce que suñu suñu dëkk yi bu ci nekk dafa am waaso yi bu ci nekk lu mu mel parce gis nga xeet boo ci nekkee danga leen di terale soo ci nekkee ba génn ñu ne ah kii kat diw sàngam kat bi mu ñëwee fii moom siggil nañu amul dara lu ñu yebe wala lu ñu xeebe li Macky Sall def nag la même chose moom la Tahirou Sarr nekk di def. Hmm. muy moom it dafa bëgg utiliser xeetam. wala hmm. nangam pour am li mu bëgg. xeet bi dal la bëgg a def def ko arme il se trompe de pays. Hmm. ba pare il se trompe lourdement d'ethnie parce que ethnie bi mu bokk ba bëgg leen indi indil loolu mhm. seen philosophie morale dafa wuuteeg bu France boo xam ne nationalisme dafay mën a prospérer foofu mhm. te ñooñu ko fay def muy Marine ak Jean Marie Le Pen Baye Diack yooyu ñooñu xam nañ seen dëkk diagnostiqué nañ réew bi ba xam ne lii mën na fi jaar mais moom bu xamoon senegal du fi yëkkati yooyu bu xamoon let ni wolof du fi yëkkati loolu. ndax xaaroon na loolu ba muy yëkkati kàddu yooyu. xaaru ko beneen bi mooy am na kàddu yu mu wax Sonko du ay kàddoom. moom dafa am benn xarit bu ñu bokk. Hmm. xam ne borom alal la mi ngi Strasbourg di sama xarit man sax maa ko jox numéro moom numéro Tahirou Sarr maa ko jox kooku. Hmm. li tax ma sama xel dem ci kooku nag bi mu nee Sonko. Mhm. li tax ubbiku maanaam Macky Sall daf ko fi tëj maanaam génn tukkiwut. Mhm. kàddu yooyu du kàddu yu taayiroo kàddu yi suñu xarit bi ñu bokk la moom mooy waxee noonu. kooku moo ma daan wax ba mu naan kooku moo ma daan wax naan kon Tahirou ba mu naan moom Ousmane Sonko sañut a génn réew mi te amul fitu génn réew mi parce que xam na li koy xaar du ay kàddoom. non day wax rek moom non sañ na boobu xañ na loolu kàddoom la. mais Sonko li tax amul expérience amul relation nangam nangam xamut àdduna mooy dafa génnut. Hmm. loolu moom du kàddu yi Tahirou kàddu yi xarit bi ñu bokk la. Hmm. xarit boobu moo ma daa wax naa ma Sonko mën naa koo dimbali mais bu ma ko yombalal ma nekk kon doo ko dimbali effectivement ku yàlla may la ci njàng xam-xam. yàlla may xam-xam bu nekk nag muy xam-xamu àdduna relation ak yooyu même ba ci xam-xamu Euh, ñaan baatin mais dafa am benn anecdote bu xoromu bu am <laughs> sama diggante digganteeg moom mm-hmm. parce que su may wax mooy euh, ñu ngi ci la novembre le 23 novembre mm-hmm. def ne ma 2013 dafa toog ba mu yàgg mu ne ma seen waa ji du gañe mm-hmm. xool naa mais ki ma gis Amadou Ba la may niru ma ne ko gisoo Amadou Ba mu ne ma xam ma ne ko Guy Marius Sagna nga gis walla ki Sonko di joxañ billaahi ak ndox mi ma naan xaw ma woon ne sax Sonko day joxoñ jawmaay wala keneen a keneen mais xalaatoon naa ni étau bi seeree. Mhm. laa mooy am moom mu ne ma lii dama ko gis ci gént ci xam-xam laaj naa ci diw ak diw ma ne ko man xaw ma dara. mais ni mhm. ma ko analyser ci doxoonu jamono lii la. Mhm. xam nga lu ñu tàqale. bi joomaay gañee dama ko woo di sibile suñu relation fa la dagge muy ku baax nag mais problème bi mooy li ma doon wax mooy. Sonko. Euh, kooku nga xamante ni moom nga mettre en rapport ak Tahirou Sarr. Mm-hmm. moo ne la gisul Sonko mu gañi. Amadou Ba la gis waxuma boolewuma ko maanaam ñëw ma ne ko Tahirou ngi ne nangam nag. yaa ko jox numéro Strasbourg man maa jël numéro Tahirou Sarr jox ko ko. léegi kooku moo digal Tahirou Sarr yenn kàddu yi. dafa am baat yu mu wax yoo xam ne waxinu kooku la. te bu ma la. lu la ci oh, la ci wóor. kooku jàppale na maanaam paa jàppale. taxawu na comme ku mel li mu bëggoon ci man bëggoon na ko ci dàmbuj Cheikh Bara Ndiaye ak ñeneen man fi may waxee yow élection législative yi xam man maa désisté ci Pastef dugaluma sama liste mm-hmm. sama ay kayit pour pour pour postuler mm-hmm. que dama ne li Sonko defoon laay def man pare nañ tegaloon ma vingt cinq million ci table bi burut kooku keneen pour ma dem postuler pour électorat Pastef wàññeeku Hmm. pour mu wax la li gën a gàtt. parce que dara da nga ci am nangam mais li ma wax mooy. dañ ko jaare ci comme làkk yi ñi may promouvoir li ma ci def. Hmm. sàmm suñu mbatit bi may jiiteeg yooyu yooyu jaare ko foofu quoi. mais da ngay comprendre ne après laa gis li nekk ci ginnaaw bu dee kee nag moom ba mu ma daree dikk ci daaw que bu ñu yeggee ci élection législative ñu def nangam ak nangam yàgg na néew ma moo jàppale Tahirou Sarr parce que Tahirou ñàkkut lu mu defee caution. mais sama xel daa tey rek. te xel tey na. voilà mais dafa am baat bu mu yëkkati boo xam ne waxi waa jooju la. d'accord léegi nag li may wax ci philosophie morale wolof. Hmm. xam nga man sama yaay hmm, pulaar la mais philosophie moralu pulaar wala séeréer wala nàngam nangu na nga tagg nit comme tey nga daal di ne pullo tey ci ci ci ci ci philosophie morale wolof tey comme séeréer lu muy wax séeréer ko jigaa jom wala mu ne pulo pulo wala taa ko xerse maanaam pël du ragal waaye dafa am kersa mm-hmm. wala pël dafa baax wala soose ne la manding ko comme tey manding bu kii bi wala ne la ne la ne la ne la ne wolof la mais wolof lan la lay wax saatu te pourtant kenn ku ci nekk sa philosophie morale baax na. Mm-hmm. muy parce que booy wax naan euh, pour la kii na ñoom tuddati euh, ragalul mais dafa am kersa nangam nangam loolu mën nga ci yar sa doom mais bu extrémé lu ci nekk egg extrémité man naa yàq. Mm-hmm. wala fit noonu lay waxee moom du waxee genre boobu parce que loolu du philosophie morale am. daf mm-hmm. naan saabu du fóot boppam. wala saatu du wat boppam. philosophie morale wolof boobu it su ëppee. day jur ñu yeb la comme ni ñu Macky Sall yabee woon par exemple nga gis benn penda ba bu ñu saaga wala benn ay dara bu xëy saaga wolof yi ñu sàcc nangamam mu ne wolof rek kay fenn wolof rek kay sàcc yooyu ñu porté plainte mujjut fenn yooyu Macky Sall du ethniciste du raciste mais utiliser na loolu parce que am na benn orgueil bu nekk sama mbokk yaay yooyu boo xam ne par exemple surtout ni nit ñi doon fi ñu doon yegg commencé leen di indexé loolu boo leen ko defee dañuy gis seen bopp mais après comprendre nañ léegi nag bu dee wolof nag li tax ma ne Tahirou Sarr dafa trop trompé wu da lit nii mhm. wolof dafa foogoon li existé woon moo existé waat voilà wolof du xalaatee noonu wolof moom du boddee d'accord maanaam ñëpp sax meluñ noonu mais surtout wolof boo ko bëggee indi li boo di compté yaa ko jaaxal amaana tey li xew li tax ma yox loolu mooy France boobu loolu prospéré ñoom pour nangu làkku français 27 pour cent ñoo ko doon wax ci France yeneen langue yi comme corse wala comme basque yi wala catalan yi jël yeneen yeneen mais en tout cas làkk français bii ñuy wax 27 pour cent ñoo ko ci déggoon mais rey nañ ci nit. tëj ci ay nit pour ñu nangu benn làkk bi mhm. Sénégal fii ñëpp a ngi làkk wolof 98 pour cent ci Sénégal ñu ngi làkk wolof te forcé ko kenn mhm. kon suñu làkk yi muy joolaa bi muy séeréer bi muy pël kenn amul xaar ma yàlla ak sa morom mhm. fenkonte yenn saa yi day am mais bu ñu waxtaanee juboo Sénégal fi ko Macky Sall yóbbu woon ci ku boot diggante maanaam bu doon beneen réew nëga ni xam nañu li yenn réew yi xam muy coup d'état guerre civile ak lu ci nekk mënoon am mais suñ borom moo ñu dimbale mhm. ak magi ñaan ñu baax ñi ku mel ni Cheikh Omar Fouti Serigne Touba mhm. Serigne Nangam ak yooyu léegi nag moo tax ci wet gi waaw tey kii di ci wax si laa doon ci jéem a wax di dem ci pëlier ak yooyu dañuy comprendre y a des yoo xam ne Sénégal leen na ko surtout le régime actuel beneen bi muy taayiru toog ci benn plateau ndaw si di ko laaj mu ne ko ni état bi di gérer kii bi affaire euh, étranger yi baaxut fichier bi ak yooyu mu ne ko bala ñu ko doon def dañu war a auditer ba pare ab fichier ku koy def te auditer wu maam loolu mooy waxi dof. Mhm. kon tey waxi dof la wax. waaw loolu la wax ci seen teraanga kooku ne ko. léegi kon da nga ko jàppee kàddu yi waxi dof la rek kooku loolu mooy waxi dof mooy géej am na ndox. kooku ne ko. Mhm. man gis naa ay ay étranger guinéen yu ma wax ne ñoom. amoon na ci ñu ami kayit mais dañoo jékki-jékki dem di lijjanti dara ñu nangu seen kayit mu ne non effectivement ñun la ñoo ci liggéey am na sax ay ay ay paawu pël Fuuta yoo xam ne ñëw nañ andil ma ne ay nit ne ma dañuy renoncé wu ci seen kii maam xoolal ko boobu malo malhonnêteté te fekk na la régime actuel ñoo tàmbalee euh, numériser kii bi état civil bi. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne boo ci bokkut dafa am lu lay génne dafay am enquête yu commencé di am loolu mi ngi jur résultat loolu mu xam nag xëy di di gaawantu di wax ak di saaga ak yooyu waaj ji da koo àjji biñ ko àjjee nag këpp yalwaanam mu taxaw di wax le mais ñun boddintee wuñu li Sénégal am ak Guinée am ci ressource mhm. defaral nañu lépp mhm. nan nga fiy gisee France muy jël suñu or jël suñu zircon wala jël suñu ay ay ressources wala yeneen dëkk ak yooyu yow waxoo sénégalais bi ne ko lii moo tee nga développé wala accord union européen yiñ ne duñ ko renouveler waat te tay ne sax mm-hmm. tay ne ñun waa sénégal nanguwuñu la ñee daan nangu mooy régime yi fi doon nekk moo tax yow nga bëgg a wax sénégalais bi ne ko mm-hmm. waa ji teg taabalu waa ji pël bi waas jën wala ki mm-hmm. yor boutique bi moo la tee développé te alors que yow deewoo ko sa géej gi ñuy di sànni di jaay moo la tee quel mm. contradictoire ci yi nga xam ne moo am moo tax gis nga li may wax gars yi mooy. mooy la dimanche. nañu dem voté ci bii. Ah, waaw dimanche dimanche nañu voté ci boobu. ay ci Cheikh Tidiane damay tourné ci yow. waaw yow la yow suñ kii bi. Saa Wolof dañuy continuer parce que laa laa laa dafa guddi internet yi ñu ngi jàkkaarloog ñun te fi mu toll nii min wi jot na campagne bi jeex na. Euh, Cheikh ma jublu ci yow rapidement. saa <laughs> saa euh, ndaanaan la ci kàddu yi ki nga xamante ni moo dama xam ni campagne bi jeex na dañuy campagne te <laughs> Cheikh Tidiane. Euh. mam Pape Djibril Fall duggaat na ci diggante ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne mooy le président Diomaye nee na Ousmane Sonko ci boppam moo dugal Diomaye ci kaso bi mais Sonko ci boppam waaye Diomaye moo génne Sonko ci kaso bi. ay kàddu ki nga xamante ne mooy Pape Djibril Fall la euh, dellu si waat euh, di wax ci la ko Pape Djibril Fall wax kii euh, Tayour Sarr waxoon saa day tiit di saa may may set déedéet déedéet dafa guddi internet yi ñuy xaar Cheikh Tidiane newul ci axe boobu noonu dafa guddi déjà guddi na lool tey bokk internet yi xàddiwuñu ñun yaakaar la ñu duñ seetaan il faut qu'on avance Tayrou Sarr du ma ko mere ndànk il faut qu'on comme kay maanaam Pape Pape Djibril Fall dana tax dana tax ma baal Tayrou dama dama koy àbb la lam lam waxoon Pape Djibril Fall day tiit di déedéet déedéet du ma ko bàyyi Fallou du ma ko bàyyi na Cheikh Tidiane ñëw parce que laa dafa guddi dañuy tëddi ah, comme tey moom nee na kàddu yi Tahirou Sarr du ay kàddoom ay kàddu yi xarit bi mu booleek moom la ah. man xamatuma ci dara kon nag Tahirou saar bu ko kenn jàppale dara bu ko kenn toppee dara ndax saa moo hmm. wax lii ni du ay kàddoom ay kàddu yi xarit ba mu ko booleel la ay Cheikh Tidiane nga ñëw ci kàddu yi Pape Djibril Fall waaw